nekk rek ci màggal si Abdoulaye Mbacké bi la doon doom ci kër gi doon lépp ci kër gi mu benn bi ah jërëjëf gannaaw bu ñu sante yàlla jële ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di sant Serigne Touba Khadimou Rassoul ñaanal Serigne Sidi Abdoul Ahad mu yàgg fi tewee dañu doon li nga wax ñoo ngi ci bisab tey bii la ñuy màggal màggalu Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke yal nañu yàlla taas ci barkeem yal na yàlla dolli leeram Sëriñ Sidi nag di ko màggal jiite njabootu Sëriñ Abdul Ahad gépp ànd ko ak euh, njaboot gi ak taalibe yi di ko màggale fii ci kër gu mag euh, gis nga nag ni jamono bi demee tax na moo woote woon sëriñ bi moo de woote woon ne kenn ku nekk fi nga nekk na ko fa màggale loolu moo tax moom nag mu nekk fii ci kër gu mag gi toog fi ak njaboot gi ak taalibe yi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi ak ci dëkk bi te nekk fi même belal daf na leen waa belal na ngeen toog belal màggale foofu foofu la ñu ko màggale bépp euh, foo xam ne taalibe sëriñ bi ma nga fa ci réew mi ak ci bitim réew ña nga koy màggale foofu loolu nag moo ci joxewoon ndigal mu njaboot gi ak taalibe yi aussi defe nañ ko nim leen ko sante woon mi ngi fi nak la yendu tay and ak njabot gi ak talibey ak wa kër gi yëpp ku melni ni abdullah Abdoul Ahad ak man ak Basiru ji ak talibey yu mag yëpp ak la njabot gi ñu toog fii dan fi lañ ko magalé ak euh, Cheikh Abdou Bali li nga xamné ministre la go président de la république nak yone na fi ben délégation Matar Ba jité ko and ak dam Diop ak gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak euh, ñi ñu andal donc ñu ñëw ndokkeel si sëriñ bi def ko yoon bu simple sëriñ indi nañ nuyoo président de la république ak ak cantam ak ab siyaareem sëriñ bi delloo na ko ak cant comme ni mu ko daan defee ak ak ak ñaan jox leen ko ñu yót ko président de la république mu ngeen koy yónnee loolu daal la ñu fi yendoo tey di ñaanal sëriñ si di mu yàgg fi te wér di ñaan mu ñaanal ñu nawet bii ñuy jëm sun borom def ko nawet naweta barke te ñu fekk ko na ngeen siy demante kenn bañ a manqué wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.